tu yéenekaay yu fi yegg si fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar xëy na dalal Ousmane Sonko ci kaddu yu mu yëkkati euh, démb euh, jëm ci joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall ak euh, nguuram ne am na contrat goo xamante ne dox na seen digganteeg njabootu Perez fekk baax ca Israël bokk na ci la leen boole diil la gu tënku ci téeméeri milliards yu toftal juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 196 milliards jëm. ci njëndum euh, ngannaay euh, Ousmane Sonko yemu ca lañ ko weccoo bokk na ci lu toll ci euh, juróomi junni mètre carré fi ci xolu Ndakaaru ga ñu jox njabootu Perez doon lu Ousmane Sonko jukki démb ci xibaar joxoñ baaraamu tuuma njiit réew mi Macky Sall ak nguuram Walf Quotidien xeetu ñu dégtal gaañu gaañu ga mu am ci oom moom Sadio Mané. ab chirurgien wax na ci ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu paj euh, lan lañ lañ la yaakaar ne xëy na moo gàllankoor euh, Sadio euh, mane ba nii kenn xamagul ndax dina bokk ci mondial bem déet lu waaju ci tegum loxo Papa Alé Niang yéen cabinet presse bi fas yéene nañu wàcc ci mbedd mi yëngu-yëngal ñaaw lu anam yañ ko tegee loxo Papa Alé googee sax dañ ci amal doxum ñaxtu fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre gi ñu Euh, nekk bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi boot euh, taskatu xibaar yi yéen bi di Le Soleil xëy di ñu dégtal njiitu réew mi euh, Macky Sall mel ni ko yëkkati loxo ne fitna ga ñuy teg jigéen ñi ne dakk ca na mu gën a gaawee moom jot na ko waxtaanee démb moom njiitu réew mi Macky Sall ci Le Soleil. jàpp ne dootuñu seetaan mukk ñuy fitnaal ak di bunduxatal jigéen ñi euh, saay su ne ndaje waxtaan googee ñaareelu conférence u Union africaine euh, njiitu réew Macky Sall ma nga foon euh, taxawu na jigéen ñi noonee la ko yéene kaabi di Le Soleil fësale ci xëtam bu njëkk yéene kaabi di enquête xëy amal enquête gu yaatu ci Europe Sénégal ne mbir la guy dox ci jamono ji fuñ ko natt ci jéego weesu na ko waaye nag ñay yëngu ci or googule di ko gas ak yeneen ak yeneen daanaka dëgg dong lañ ci am yëf ya melaxagul ci seen loxo wala boog ci seen poos mu ngi ci enquête yéen a bi di euh, turbine mu ngi ñuy dégtal a Seck euh, moom ak njiit réew mi euh, Macky Sall mburoog soow. yéen cabinet bu ñu deful ndànk nag euh, mburoog soo moomee mun naa dog euh, ndax euh, Idrissa Seck mi bugg a wutu njiitu réew Macky Sall ci élection présidentielle ñu jëm yéen cabinet ci tribune gis ne fii vingt 2024 ñoom ñaar mun nañoo taqali ko ngoyo ngoy xam nan lay bootijee doomam. mu ngi ci yenn kaabi di turbine mu ngi ñuy dégtal yi tamit Pape Alé ma ñu jëlee ndakaaru yóbbu ko ca kasob se bi xotaan loole nag doon lu métti lool taskatu xibaar yi noo ne la ko turbine fësale ci xëtam bu njëkk jafe-jafe hôpital principal bu weesoo liggéeykat ya fournisseur ya yi tamit tàmbale nañoo euh, ñaxtu yéen a yi di euh, l'évidence ci xëtam bu njëkk euh, bokk na ci AFP jot na rafetlu démocratie gi ne ci Sénégal ne ngelawaay nañ ko sàmm euh, bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Niass njiital AFP ci yéen a yi di l'évidence yi tamit kilogramme gerte gi. njiitu réew Macky Sall jël na ci dogal ne njëg ma dina toll ci deux cent soixante-quinze francs. loole nag euh, jur mbeteel ci monde rural maanaam béykat yi euh, ne yaakaar bu tas lañ ci jëlee ñu ngi doon xaar euh, kilogramme gerte gi dem ba weesu 300 francs yëpp jàpp 400 francs yéen kaa yi di Sud Quotidien xëy ñu dégtal Ousmane Sonko kàddu yamu yëkkati joxoñ baaraamu tuuma nguuruk Macky Sall bokk na ci tamit ci wàllub gestion patrimoine bâti de l'État nguur gi Euh, moom la ci euh, taqal euh, rip ci jamono ji scandale foncier goo xamante ne Ousmane Sonko wax na ne nguurug Macky Sall seq na kook njabootu Ferez te ñu fekk baax ca Israël bokk na ci tamit mbirum Pape Alé Niang ne askanu Sénégal waruñu ko seetaan dañ ko bunduxatal jaay ko doole ba yóbbu ko kaso bu ñu sukkandikoo ci njiital Pastef mi xam ne dina soobuwaat maanaam jubluwaat ci nemmeeku tuur fas yéene door tey ji sax ca Tiwaawoon la fas yéene dem euh, bokk na ci tamit euh, kalaame ci yoon euh, procureur de la république ba woon yéen yi di Sud Quotidien xëy di ñu ko leeralal. yéen yi di l'observateur ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal lu waaju ci njëgu dundu geek wàññeeku gañu ne dina ci am ak dogal yi nga xamante ne. njiitu réew mi Macky Sall jël na ko ak jafe-jafe yi nga xamante ne moo cee tàmbalee. Eh, daanaka jib eh, ndax eh, jaaykat yi daañ ko jëfeem déet askan wi yitewoo nañu daanaka wàññeeku mun caa am mu ngi ci yéen a bi di l'observateur ñu ngi ci seen i tamit plan de bataille matuwaay yi nga xamante ne presse bi jël nañ ko ngir ñu mun a may afiya Papa Alé Niang mu mun a génn kaso ga mu nekk wutali njabootam béyaat waaram ci métier mi yéen cabinet ba tax na kuréel gi boo taskatu xibaar yi ne daañ ci amal doxum ñaxtu fukki fan ak juróom-ñett eh, ci weeru novembre gi ñu ne mu ngi ci yéen cabinet di eh, l'observateur yéen cabinet di eh, l'info mu ngi ñuy dégtal fitna gi ñuy teg jigéen ñi. rawatina xale jigéen ñi njiitu réew Macky ne stop maanaam euh, fitna googe dafa war a dàkk ca na mu euh, gën a gaawee ndax jaaduwul tamit dafa yenuwul maanaam dafa rafetul ñuy méttital jigéen ñi saay su ne ndaje waxtaan giñ ci doon amal fii ci Ndakaaru njiitu réew Sall euh, dànkaafu na ca ne daañ ci jël matuwaay. ba jigéen ñi gën a am seen afiya ak seen jàmm mu ngi ci yéene yi di l'info ci euh, xëtam bu njëkk yéene kaabi di 24 heures mu ngi ñuy dégtal mbirum patrimoine bati de l'État Ousmane sunko sulli na ca mbooto euh, bokk na ci tamit euh, daanaka dootul yàgg dootuñu amati patrimoine immobilier fii ci xolu Ndakaaru lépp la njiitu réew Macky Sall ak nguuram fab euh, joxe ko jox na ko sax euh, njabootu euh, Ferez lañ ko weccoo ci koppar jëm ci njaayum gànnaay koppar yooye xayma nañ ko mu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn Ousmane Sonko moo ni waxee ne bari na li nguur gi di lebi ay koppar du jëm ci wàllu dund waaye nag jëndum gànnaay ngir mun a nooto askan wi Ousmane Sonko ay kàddoom ci 24 heures yéen kaabi di critique euh, di ñu dégtal euh, double plainte goo xamante ne teg na ko ci ndoddu euh, Serigne Bassirou Gueye Ousmane Sonko kalaame na ko fu mbaxana doone benn yéen kaabi moo ñu ko yeggee ci xatam bu njëkk kuréel gi jóg ngir xeex ak ak yelleefu doomi aadama sax ku itamit ngir ñu ba Papa Alé mu delluwaat ci njabootam euh, yéenekaay bi mu ngi ñu koy dégtal euh, kilogramme gerte gi 275 francs loolee jur mbetteel ak euh, jafe-jafe ci béykat yi mu ngi ci yéenekaay bi di critique yéen a bi di euh, Source A xëy dalal Mamadou Thior njiital CORED euh, dikkaat na ci euh, li nga xamante ne tegum loxo Papa Alé Niang ñaawlu na ko bokk na ci assise de la presse fexe ba amal waxtaan gu yaatu jëmale ko ci presse bu Sénégal dikkaat na tamit ci payoru liggéeykat yi ne ci presse bi ki tamit naka lañu ñu war a tànnee directeur général jëm ci média public yi moo xam Soleil ak RTS ak yeneen ak yeneen doon lu lu mu jukki tey ci. xëtu source wa moom Mamadou Thior yéen a bi di les échos des ci métier tasum xibaar euh, su mandat de dépôt lañ ko yóbbu njiital Dakar euh, matin Papa Léñan ma ñu jëlee ci Ndakaaru yóbbu ko ci Sébikotane euh, presse bu Sénégal ñu ngi waajal soobu ci komba bokk na ci ne daañ ci amal doxum ñaxtu fukki fan ak juróom-ñett ajjuma ji ñu jëm fii ci Ndakaaru ñoom itamit taxaw nañu ak seeni avocat ñoom presse bi ngir taxawu Papa Léñan yéen syndicat bi di les échos taxaw ci wàllu football ak sélectionneur nationalu gaynde yi Aliou Cissé yokkalaat nañ ko contraam euh, ba euh, fileek 2024 euh, bokk na ci payoor ga nag yokkooti na fanweeri million weeru jot la ñuy bëgg di fay Aliou Cissé mu ngi waajal li nga xamante ne mooy mondial 2022 ca Qatar yooru yooru tey jii la ñuy xaar ngir mu jukki liste gaynde yi war a dem ca Qatar yéen a bi di libération euh, xëy euh, dem fi nga xamante ne ca diwaanu Thiès ak mbirum euh, xale bi nga xamante ne ca ab daara internat ca Thiès yéen a kaa bi ne M Samb tur wa la tàmbale sant ba di Samb toll ci juróom-benn at. Uh, buñ koy rob fekk na muy dund yéen kaa bi xeeduñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk ak la ca tukkee ca autopsie bak yeneen ak yeneen yéen kaa bi Eh, xëy duñu ko eh, leeralal mu ngi ci eh, xët yi yéen di bés bi le jour mu ngi ñuy dégtal Qatar 2022 bokk na ci tamit équipe nationale ak fañ cay toll Sadio Mané bokk na ci tamit nañ ko jëmmale ci bile mondial ak nañ koy ñaanale ngir mu jogaat ak jàmm wutali googu lay jongante yéen kabi xëy duñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk bokk na ci tamit ñaar fukki. Euh, joueur ak juróom-benn ya cay dem ca Qatar daañu leen xam te ji ci ajuma ji. Euh, yéen a bi euh, xëy ñu ko xëy di ñu ko dégtal bokk na ci taskatu xibaar yi ñoom daanaka fu ñu tegoon seen tànk teggiwuñ ko jëm ci ñu may afia libéré ki nga xamante ne mooy Pape ale Niang yéen a bi di stade mu ñuy dégtal liste bi Sénégal war a jukki Sénégal ak Pays-Bas ñu ngi leen di xaar ci àjjuma tey jii. Euh, entraîneur bu pays ba dina ci gindi askan wi waaye nag.